huwa diinuhu alladi manna allahu bihi alayhi فالدين بمثابة الروح للجسد كما لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الروح لا تستطيع أحوال الإنسان بعيدة عن هذا الدين ولا شك أن كل كل مسلم مطالب بالحفاظ على دينه min haythu tahsili wa ziyada bi fi'li al-ma'murat wa ijtinabi al-manhiyat aw min haythu al-hifadhi alayhi min al-intiqas alladhi yuaddi ila al-hulkati fi dunya wal axira mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ragal yàlla gi nga xamante ni mooy ndénkaaneel yàlla ñeel ñi jiitu ak ñi mujj ci xeet yépp yàlla loolu la wax ci alquran wax ko ab yonentaam wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah dénk na ñi leen jiitu woon ci ñooñ téere ak yéen ngeen ragal seen borom subhanahu wa taala mbokk yi ginnaaw loolu amul benn siki sàkkani li ëpp solo li doomu aadama di am ci kaw suuf ñu ni kii am na nangam li ëpp solo ca ameef yooya mooy diine am diine mu ëpp solo lépp lu nit mën a am bu ko ñàkkee mën na ko bañ a wàññi dara ci dundam gi ak dundugamu ga jëm waaye ñàkk diine ku ko ñàkk sa dundu gi fii dina metti fële mooy rawati yàlla nañ ci yàlla musal mbokki jullit yi diine ci doomu aadama rawatina ci ab jullit dafa mel ni ak ruux ci jëmm dafa mel ni ab bopp ci aw yaram nit mën naa ñàkk bépp cër ci ay cëram mu continuer di dund waaye bopp ba teggale ak yaram bi kooku dundatul nit mën nañ koo greffer sax res wala ñu sax opérer xol bi am yuñ ca def tax muy noyyi ak a dund waaye ruuga dem na mooy génn na àdduna mooy faatu kon noonu la diine mel ci dundub jullit bu amatul diine jàppal ni moom c'est un cadavre ambulant maanaam néew buy dox la aka ñoo bari sax néew yi dox ci kaw suuf ngir ñàkk diine diine ji firiwul rek ni dañoo judd tudd Muhammad wala Ahmad wala Mahmoud wala Ibrahim wala Suleymaan ay jullit lañ waaye loola luy taaral la tax nga nekkub jullit la tur wu rafet mbokki jullit yi jullit bu ne dañoo sàkku ci moom mu sàmm diineem ci amal ko ba pare di ko dolli ndax ñu bari ci ñun dañoo judd rek di ay jullit xéewal gu rëy la dëkk ab jullit xéewal gu rëy rëy rëy balaa ñu koo xam faatu waaye gi ko nekkee dañoo war a ndëkk góorgóorlu ci suñ diina di dollee ci jëfe ay ndigal bàyyi ay tere sàmm ko tam ci bu nu ko amee ba pare tam moytu tam muy wàññeeku ñu xam nit te kii de ko amoon diine la waaye léegi ku ñàkk diine la wala diineem dafa woyof léegi wala am na yum daan def yu dëgëral diineem ba ne lépp loolu tam ñu moytu ko ndaxte mbokk yi li sharia sharia dafa am ay maqasid dafa am ay jubluwaay jubluwaayam yooyu yi ëpp solo moom la ñu tudde al kulliyatul xams wala ad daruriyatul xams yi nga xamante ni man da ñàkk ci ab jullit ñu sàmmal ko mooy xifdu diin xifdu al aqli xifdu nafsi xifdu al irdi xifdu al maal mooy sàmm diine sàmm am xel sàmm ab der sàmm alal juróom yi dañ koo war a sàmmal jullit bu nekk ci kaw suuf loolu moom mooy tax sunu dund gi jag nit ki bu ko amee sax te sàmmalu ko boppam ay mbokkam dañoo war a taxaw ci mu sàmm ci sàmmal ko ko sax xoola ba ci am xel wala alal yàlla boo demee ba naan wala tutu sufahaa amwaalakum ñi dese bu leen leen jox seen alal mais kooku moom moom alal ji de mais yàlla nee na bu leen ko ko jox ndax jox gi mën naa am da koy yàq kon dafa sant ñu sàmmal ko am xel mu tere lépp loo xamante ni boo ko jëfandikoo mu sànk sam xel nga bañ koo jege yooyu yépp nag xel ma alal ji bakkan bi ab deram yooyu yépp sàmm diine leen féete kaw sàmm diine moo leen féete kaw nit ki bu sàmmee diineem bu amee diine rek yooyu nga sax dina ko mën a sàmmal boppam moom moo jiitu te moom moo mujj diine moo jiitu ci dund doomu aadama rawatina ab jullit te moom mooy mujj bu juddoo mbiri diine lañ koy defal diggante bi yëpp mbiri diine ci amaat ba bis biñ koy jébbal boroomam ñu ni oo imam imaam imaam la ñuy xaar oo leen ñi koy sang lépp diine la kon amul loo xamante ni dafay tëb diine kon diine ji sax ay obligation farata yi ak tere yi bu mu ci doon rek daa dellu ci ngir nit ñi mën a sàmm seen diine finalité biñ la diggal ci julli pour nga sàmm si diine la biñ la digal ci koor pour nga sàmm si diine la tere gun la tere pour sàmm diine la tere gun tere jullit bi rek pour diineem ñoŋ la diineem sàmmu la yàlla defu ko ngir mbugal ñu déedéet waaye da koo def ngir gën a ñoŋal sunu diine mu gën a sàmm te nag dara ëpp ci solo nag sàmm googa ci diine ji li yàlla farataal ci yow rawatina ponki lislaam yi ponk ku ko man di ci daardaarlu wala di ko bañ a joxe ah bu ëllëgee mën ngaa am ay daan ci sa kanamu borom subhanahu wa taala te loolu lépp nag li muy firi rek yàlla lim ñu digal la tere ñu ko mooy dafa bëgg loola concrétiser wala loola jëmmal yaxal ni sunu raison d'être ci kaw suuf sunu mission ci kaw suuf lan moo tax ñu ñëw fi muy jaamu yàlla yàlla dani wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun maa uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutcimuun inna allah huwa arrazaqu dul quwati almatin yàlla nee na binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma bëgguma ci ñoom wërsëg bëgguma ci ñoom ñu lele ma man may borom wërsëg wi nga xamante ne du jeex du jeex mbokk yi importance bi nekk ci sàmm diine dafa feeñ ci ñàkk ko nit ki bu ñàkkee diine day am ñaari jafe-jafe dina am jafe-jafe bu àdduna dina am jafe-jafe bu àllaaxira li tax nga ñëw ci kaw suuf boo ci nekkul leneen loo ko def pour mu remplacer loola du remplace du ko mën remplacer yàlla dañu fee indi ñu jaamu ko buñ jaamul yàlla dafa am benn gap benn vid buy nekk boo xamante ni benn crise boo xamante ni kenn du ko mën a remplir lu dul def loola boo ko deful rek yaa ngi ci ay jafe-jafe wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى yàlla nee na ku dëddu sama diina ji sama njàngale mi sama alquran ji li tax ma indi leen fi ku ko wan ginnaaw di nga am dund gu karaj dund gu jafe te di leen ko dekkal yowmal qiyaam mu gumba ay bëtam du gis bu dekkee danaan yàlla lu tax nga dekkal ma gisuma li ma xasartani ama te dama doon gis ci àdduna yàlla ni ko samay aay da laa dikkaloon nga fàtte fàttelu ko tey dañ lay fàtte yàlla nañ ci yàlla musul kon ñàkk diine lawalu ay conséquence la ci moom beneen bi mooy bu diine amul woon ju ñu tënk ñun jullit ni fii nga war a tàmbalee fii nga war a yem lii nga war a def lii da koo war a bàyyi lii nga war a wax lii war a koo wax kon sunu dund gi benn jungle lay nekk benn àll la booy boo lay doon boo xamante ni lambi gora lay doon ku man sa moroom rek fàtt bu yàlla yónniwul woon ay yonent jox leen diine ñu orienté nit ñi tënk leen kon loolooy am xoola jaafar bi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ñu dem xabasa ni leen dem leen fa am na buur bu maandu te sax du woon jullit biñ ñee Najaasi bi mu leen di déglu discours bi Jaafar wax dañu ko lii nga wax diine moo ñun diine ji ñuy diine woo benn contenu bi te lim doon wax mooy ñun day dañoo nekkoon ay ceddo dañoo nekkoon ay ceddo mooy lu waay neex def di lekk riba di rey suñuy doom di bokkale ak sunu borom di lekk alali nit ñi loolu du du man sa morom duma waaye yàlla yónni ci ñun ab yonent mu ñëw indil ñu jàngal ñu maandu ak jëf ju baax naka noonu beneen saxaaba wax na lu mel noonu ci kanamu benn kilifa ci kanamu rustum la ko waxoon dani ko ibtaasana allahu li nuxrija al ibad min ibadati al ibad ila ibadati yàlla dañoo tànn ngir ñu génne jaam yi ci jaamu jaam comme ñoom yóbbu leen ci ñu jaamu borom jaam yi mooy yàlla subhanahu wa kon diine mbokk yi loolu lay def ci kaw suuf léegi nag diine jooju daa am yuy tax mu wattu mu sàmm xifzu diin ji ñuy wax dafa am yoo xamante ni mooy ay facteur yuy tax diine sàmm lii war a nekk à titre individuel ci jullit bu ne yii war a nekk loo xamante ni lu collectif la ñu koy defandoo pour suñ diine sàmm bokk na ci yooyu al amalu bihi mooy diine ji liñ ci xam nga koy jëfe diine ji ñépp du ñu nekk ay kàngfoore ci diine waaye jullit bu ne war naa mën a xam lu mënta ñàkk ci ay farataam mu xam ko loola lañ ca xam nga koy jëfe yow nitug diine bi yaa ngi sàmm sa diine xam nga fii bu dee luwaay àdduna boo defee infraction boo xamante ni sax xamoo woon lu ciy loi bi moom daal liñ lay tontu dañ naan laal nul n'est censé ignorer la loi kenn warte bañ a xam loi waaw ku jàngul dina xam luwa yow ñu koy jàng sax am nañ problème problème mu comprendre problème mu interpréter problème mu commenter waaye koo xamante xutumbal la ku xamul alif day taxaw wala day tëdd xameewul a ak i nga ni ko niil ne loolu tam lu war a xoolaat la loolu nin ko nangoo ci àdduna loolu moo waroon a valable ci diine ci jullit bu ne war naa xam faratay njàpp jullit bu ne war naa xam nan lay laabe jullit bu ne war naa xam attey julli jullit bu ne war naa xam sax nan lañ war a miraase donte xam-xam bu jafe la loolu bu tasee jullit ñi duñ am yenn jafe-jafe yi ci wàllu jëflante ak ci wàllu doxalin war a xam idda war a xam atay fase war a xam atay sëy war a xam li aju lépp ci code de la famille bu jullit jullit bi da ko war a xam kon loolu mooy mooy mooy wane ni yàlla dafa yoonal sharia ngir ñu jëfe ko pa ngir ñu mokkal ko jullit yi war a xam loolu rawatina nit diine yi ak ñiy jàngale diine sharia loo ci xam ci àtte loola luñ war a jëfe la bu waxtu jëfe jotee waaye du luñ war a mokkal rek di ko tari ak di ko sànni loolu tax yàlla ni wa qul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen rek yàlla dina gis seeni jëf moo wàcc diine ji wàcce yonent yi wàcce téere yi sant ñu ñu jëf kon jëf jooju moom moo am solo ñaareel bi ci liy tax diine sàmm mooy alxukmu bihi di ci àtte woo di jéem a attewoo ci diine ci maanaam lu lu la dal rek ci sa digganteek say moroom jiital ci diine lan lay ma ci diine wax ba pare diine ji terewula ndëg bu fekkee ni attewoowoo diine ci penc mi nga nekk lu waaye fa nekk nga attewoo fa waaye li jaadu dañoo war a attewoo ci sunu diine loolu moom mooy li jaadu bu ñuy attewoo diine problème yu bari du demati gendarmerie du demati tribunal dañ koy régler ci nan lañu diine wax ci mbir mi xool ko ci problème miraas yi bu ñu miraasee miraas mi ñu lislaam sant duñ am benn problème léegi nag bu fekkee ay yéeg ak wàcc yéeg ak wàcc bu ñu demee ci kaw lañ ñu wax loola la ñuy def te loolu mën naa bañ a dëppoo ak li aaya bi waxoon ci ni ñuy séddalee cër yi beneen bi ci liy tax ñu sàmm sinu diine mooy ab daawatu ilayhi mooy ñu ciy woote di woo nit ñi loolu surtout borom xam-xam yi seenu sas la ak imaam yi al ulama warathatul anbiya borom xam-xam yi ñooy donn yon ñooy ndonal yonent yi ñoo war a jottali yàlla subhanahu wa taala dañu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balligh ma unzila ilayka min rabbik jottali li ma wàcce ci yow mu bàyyi koo ci ci sa borom waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xeetu yéen ñëpp ballighu anni jottali leen bu ñuy tasaare diine am na loo xamante ni dina am koo xamante ni moom li ñu wax lum ci xamul woon kon xamal nga ku réeroon di nga fàttali tam ko xam ci fàttali gi nga fàttali ci woote gi ci diine waaye beneen bi dina di nga yëkkati ay lënt ay équivoque yoo xamante ni dafa lënt leerul ci boppi nit ñi woote ci diine ji di ko def ci ci ci jàkka ya ca maanaam xutba yi di bind di di léegi moyen de communication yi jàppandi na di wax loolu dina dimbali ci eh, borom xam-xam wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawe taxawee yon yonent yi ñu def ko waaye beneen bi dina leeral lan mooy dëgg ci lan mooy neen beneen bi tam dina gën a leeral ni lislaam diina ju golobal la globalité l'islam ni l'islam yemul ci ay culte rek yamul ci ay culte maanaam ay jaamu yàlla rek ñuy def kon ñëw ci jàkka ji julli woor dem màkka joxe asaka déedéet lislaam lépp la yow sa dund lépp la qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin l'islam dafa global sa dund gi lépp da jàpp ni ci diine nga koy teg beneen bi mbokk yi mooy aljihaadu fi sabilillah mooy yëngatu ci yoonu yàlla l'islam li tax mu sàmm depuis yonent bi sallallahu ba muy nekk yonent mooy bu taxawul woon jaamaarloo ak noon yi ginnaaw bi ko yàlla joxee ndigal booba la lislaam di fay booba la lislaam di fay yàlla nag sant ko mu jaamaarloo ak ñooñu ngir ñu jàmmal jullit ñi jàmmal leen ci seen pas-pas ñu mën a jëfe li leen yàlla sant ci kaw suuf bu deewee yàlla gërëm leen léegi nag loolu ay eh, façon am bari na nekkatul rek dem ca front ba di jàkkaarloog noon bi di xeexak moom waaye ci façon boo ko jullit bi ma ne ko nga war a def yonente bi leen santoon umirtu an uqaatila annaas xatta yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah fa ida faalu dalika asamu min dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqi l islaam loola romb na léegi nag ñun bi ñu tollool nun noonu doxalee rek ñun dañoo war a jëflante ñoom ci lu luy jàkkaarloo ak ñoom seen doxalin bu dee xam-xam la ñu tontu leen ci xam-xam bu dee alal la jullit ñi dajale seen alal def seen réaliser seeni projet ngir l'islam mën a sàmm mën a continuer barakallahu lana wa lakum fi alquran alazim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min alayat wa dhikr alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allah li wa lakum wa lisaa'il muslimin واستغفروه انه هو الغفور الرحيم alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sàmm diine dafa war ci bépp jullit waaye war ci penc mi ngir ñu jàppale suñu njaboot ak suñu mbokki jullit ndax commencé naa tas ci penc yi ci adduna mi ci réew yi ay idéologie yoo xamante ni yu dévié la idéologie yoo xamante ni dafay sànq xal xelu jullit ñi rawatina ndaw ñi dañuy dem ba oyof loola sa diine dañuy dem ba lu la diine tere woon ak xel mu rafet ak mbañum rus dangay dem ba jàpp ni loolu dara amu ci ngir am sa àdduna lii ci wut alal la lii ci ñu ñu jéema a satisfaire seen besoin sexuel la bu ndemee ba ay jullit góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy ak yeneen idéologie yoo xamante ni tas na ci àdduna bi te ña koy jiite da a jaral lu ne bu fekkee ni jaralul jullit ñi loola de lu tol noonu wala lu ko ëpp diine ji day gën a wàññeeku ci ndaw ñi bu ko defee bu ëllëgee ñoom ay mag ñu ñàkk diine te mag moo fi gis ndaw la woon moo xam am na diine moo xam amul diine te ndaw lu dund continuer bu màggee day nekki mag day am diine baa mu ñàkk te mi ay mag loolooy li ëpp ñooy ñooy jiite mag ñi ñooy kilifa yi bu fekkee kilifa gi xamul kilifa gi amul diine njaboot gamuy yilif ñoom fu ñu jëmati kon nañ ci bàyyi xel ñun ndaw ñi nañu bàyyi xel ci idéologie yi nga xamante ni ñoo envahir adduna bi tas fépp ndëkk léegi adduna bi dafa mel ni benn village la benn dëkk la li xew fu mu doon à la minute qui suit ñeneen ñi dañ koy xam te influence bi négativement rek moo gën a gaaw gën a impacté ci influence positive surtout ci ndaw loolu moom moo tax dafa war ci ni ñuy sauvegarder diine ji ci moyen yi nga xamante ni dinañu ko gën a téye mu sax mooy boroom xam-xam yi nekk gardien wu diine ji boroom xam-xamu diine yi xam nga dañuy wax fii président de la république moom mooy gardien de la constitution chef suprême de la république boroom xam-xamu diine tam noonu lañ war a nekkee gardien wu diine ci waaw boroom xam-xam yi ak ñi ñuy teral ngir diine tudde leen kilifa diine walla sëriñ walla imaam wala ustaaz lépp lu takk ci diine rek diine jooju tax na sax ñu lay teral ñooñu nag ñoo war a gën a fonk diine ci cheikh omar fouti waxoon na ko li kulli qatilin naihatun yanuhnahu wa laysa ala diini almuhaymini naihun in kaana maa fi kaffi nnaasi diinun fa kaasidu fa ziida almaddu baada arraai farabi nee na lépp loo xamante ni am na rek existé ne am nañu ay ay yu koy coowal yu koy reeteetal waaye ba mu des diine ji nit ñi bu fekkee li seen loxo diine la tudd diine deel yaa nuun nee na yokkal ci yaa bi alif yokkal ci nuun bi alif toftal ci raa nee na diinaar moo leen yitteel diinaar kon diine ji nit yi diine yi ñoo ko war a fonk sàmm ko wattu ko ndax diine joojoo tax yàlla tëral leen fii ak fële te ñu jàpp diine ji nii diine yàlla la bañ ko def liñ ko def kër la te loolu ay moyen rek la woon moo taxoon mag ñi def ko waaye léegi leneen la ñuy gis kun fi laaloon sa kër maam wala kër ga nga aju nga dégg lu ne waaye diine ji pure et dur kenn du ci wax dara ñu bàyyi ci xel bu baax a baax al ulama warasatul anbiya ñaareel mooy al ihtimam bil masajid wa tafili dawriha mooy yittewoo jàkka ak fexe ba jàkka rôle ba mu amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu dellusi ci jàkka mbokk yi jàkka mën naa defar lu bari ci am péete buñ doxee jàkka rôle ba taxoon yonent bi sallallahu alayhi yàlla sant ko mu samp jàkka jàkka ji jiitu de jàkka ja ca euh, Makka mu ne woon ba mu àggee Medine lim njëkk a yittewoo mooy defar jàkka jàkka dafa am rôle bu am solo moom mooy ambassade yàlla ci kaw suuf ilimaani yi ñoom ñooy ambassadeurs yi ñooy julli si ñoom ñooy citoyens yi nga xamante ni soxla nañ seen diggante seen boroom am na luñ ci aajowoo comme ni ko citoyen ba nekk ca beneen réew réewum jàmbur am yu mu yitte ci réew moomu mu jafe ko mu dem ci ambassadeur bi jàkka yi noonu la mel ci kaw suuf bu fekkee ni seen rôle dëggantaan taxawe na ndax lu kew lu xewkat ci dundu jullit ñi ci jàkka ja la donte ci diggante bi ci même vingt quatre heures yi dañuy tàmbalee jàkka ja kocc ci leneen avant ñu koojaat ci leneen ba muy jeex jeex na bu kenn doon tudd léegi ñu ni nan xaar imam bu imam tuddee ba pare léegi jeex na mbiru diine ji jeex na léegi ba cëgg la ca des moom yaa ma gën a xam jeex na bu sëy bi amee problème ñu ni nan seeti imam bu leneen amee ba bu mbakkan rotee ñu ni imaam kon kay jàkk moom mooy commencement bi mooy fin bi buñ ko dollee roolam rek euh, diine dina sàmm ci kaw suuf beneen bi mooy al ihtimam bil usra wa muraajaatu qawaaniniha bima yatawaafaqu ma diin mooy yittewoo famille yittewoo famille bu fekkee code de la famille la ñuy ñu xoolaat ko lan moo ci dëppoog diine ak lan moo ci dëppoowul ak diine gis nga mag ñi nin ko daan defee sunu magi diine yi ci réew mi depuis jamono yi Thierno Seydou Nourou de nga ci de maam Ibrahima Niass naka noonu Serigne Babacar Sy ñoom kilifa yooyu dañ doon daje ni nan waxtaan ci mbirum code de la famille ci réew mi bu ko defee dara bañ a juyoo ak suñuy pas-pas ak loo xamante ni yàlla subhanahu wa taala loolu la bëgg ñu doxale ko ci kaw suuf loolu buñ ko bàyyee xel tam dinañu gën a sàmmal suñu diine waaye bu fekkee ni dañuy dund nekkuñu ay jullit nekkuñu ay sénégalais nekkuñu ay tubaab nekkuñu dara nit dafa war a am identité culturelle jullit nga lan mooy sa identité ni ab jullit nga lan moo koy wane lool say pratique la ah identité culturelle dafa am solo ci ab jullit loolu nag li ñu koy def mooy famille ñu ñu cuub famille yëpp cuubub l'islam loolu ñu dimbali beneen bi mooy al ihtimam bi fahmil islam bi shumuliyatihi yittewoo comprendre l'islam dans sa globalité yittewoo comprendre l'islam dans sa globalité ñu xam ne l'islam lépp la culture la sport la état la armée la lépp la l'islam lépp la ñu bañ a jàpp ni rek diine jàkka ja la kaaba ga la julli korite la takk mariage la ci jàkka ga ab rob la ca sëg yee jeex na déedéet day ndaw suñ dund gi yëpp benn boroom xam-xam bu mag bu tudd imaam Xasanul Banna rahimahullah dafa wax ci définition globalité de l'islam dani al islaamu nidaamun shaamilun yatanaawalu madahira alxayaati jamian fa huwa dawlatun wa watan aw xukumatun wa quwa aw rahmatun wa adaala wa huwa thaqafatun wa qaanuun aw cilmun wa qadaa wa huwa jihaadun wa dacwa aw jeyshun wa fikra kama huwa caqidatun saadiqatun wa cibadatun saxiixa nee na régime la boo xamante ni bu global la di aborder mboolem aspect dundu doomu aadama yi nee la mais patrie la gouvernement la mais nation la jikko la mais force la yërmande la mais maandute la culture la waaye ay loi la xam-xam la waaye itam naka noonu justice la jihaad la ak daawa woote ci yoonu yàlla ak yëngatu ci diine yàlla ji la comme ni mu nekkee armée ak idéologie comme ni mu nekkee pas-pas bu wér ak jaamu yàlla gu sell kon loolu moom mooy lislaam rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim allahuma alhimna marachida umurina wafiqna jamian lima tuhibuhu wa allahumma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasiyatik wa min taatika ma tuballiguna biha jannatak wa min alyaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaiba addunya wa maticna allahumma bi asmaacina wa absaarina wa quwaatina abadan ma axyaytana wajcalhu alwaarisa minna wajcal tharana ala man zalamana wansurna ala man caadaana wala tajcal addunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا